monsieur le maire Cheikh Ndiaye tàgg leen ko waaw ñu après naa ñu après waaw ah, monsieur le maire Cheikh Ndiaye mooy ñëw ànd ak délégation bi mu àndal di fàttali délégation composé de conseillers ay xaritam ay am di euh, yi nga ne ñoo ñëw jàppale ko ci bis bi kooku mooy monsieur le maire Cheikh Ndiaye ki ci mujj di Cheikh Anta Dieng kon ñii dañ cey gën a fes waaye ñi ñëpp seen maam lañu ak seeni waajur kon euh, li rafet na trop ñu jàpp ne Tanor Momar Fall mooy dernier teeñ mooy dernier chef de canton. ñu jàpp ne Tanor Momar Fall kon moom mooy dernier chef de canton te mi ngi nekk de 1959 à 1960. très bien voilà. moom mi ngi fi nekkoon 1949 ba 1959. 10 ans maanaam 10 ans la fi nekk. je pense que le tableau est joli très joli. waxee li nga xam ne mooy tableau bi ah fii nag moom kuñ ciy def. moom ndax moom mooy premier président de la république mi kooku mooy président ab euh, euh, Senghor ki ci des président Abdou Diouf président Abdou Diouf moo nekk de 81 à 2000 en l'an 2000 moom la fi Abdoulaye Wade remplacé kooku tamit def na fi lu ne alors euh, président bi ñu mooy président Abdoulaye Wade moo fi nekk président de de 2000 à 2012 moom la fi Macky Sall euh, remplacé. alors euh, photo bi ci des mooy le président Macky Sall le président Macky nga noonu kii kii moo moo yokk courant bi ba mu ba mu fës ci Lambaye président Macky Sall ngi nii moo nekk suñ président de la république. tàccu leen ko yéen ñëpp borom réew mi waaw kooku mooy xaritu Cheikh Ndiaye maire de Lambaye di sous-préfet de Lambaye bi nga xam ne nii amoon na yéene ñëw te yàlla def mu am ngant mu yebal adjoint am monsieur Diop di nuyu sama nattangooy maire yi nga xam ne nii aman nañ yéene ñëw ñoom ñëpp ci lu ma leer te yàlla def ñu am ay ngant ñoom itam ba tax ñu yebal ay délégation ci biir ñooñu dinaa ci jukki koo xam ne nii da cee am ñaari taxawaay da cee am taxawaayu maire am taxawaayu invité d'honneur te muy monsieur le ministre Mor Ngom de Benno Bokk Yaakaar du département de Bambey ngeen may ma tuuti ma taxaw ci Mor bala ma jàll ci yeneen collègue bëgg dem fépp nag mën naa nekk ci dënn waaye yàllaay sottal yàlla xam ne ne bëgg naa teew waaye bi mu desee ñaari fan la ko présenté ko comme ni ko Bilal waxee noonu la amee fu Macky Sall jëm Mor Ngom dina ko jiitu ñaari fan avant muy ñëw mu ne ma Cheikh ma ne ko ah mu ne ma mbir am na de ma ne ko lu am mu ne ma damay dem Matam ma ne ko baax na liggéey président moo ëpp doole liggéey yëpp te tool bi benn demal mu ne ma dinaa envoyé délégation bu fort te bi Fall ñoom moo koy jiite kon nag la mu waxoon def na ko Bilal Fall jërëjëf Bilal nuyu ñu Mboor Ngom santal nu ko t-shirt yii ngeen di gis nii li muy bari bari bari bari bari bari Mboor Ngom ma ko def jox ma ko bëgg naa mu leer ndax dafa ma ne noo defako t-shirt ma ko t-shirt day soo ma ko joxee ma jël mu dem commande t yi na ma defal lu la neex bind lii ci nekk maa ko commandé ñu bind ci waaye moon ko mooy pay t-shirt yëpp di muy bari bari bari bari te li ma leer mooy dëkk yi nga xam ne bi ñu seddoo amuñu na leen wóor ne diis na dem jukkiwaat ko joxaat leen ba ngeen doyal yéen ñëpp kon Bilal soo demee nag ma samtal Mor Ngom nag ma ko gërëmal xamal ko na ko yéeneem ëgsi na bu ñëwoon itam wax dëgg yàlla bis bi ni mu mel du ko weesu kon santal ma ko gërëmal ma ko di nuyu aussi di sant sama nattago bi fi bi fi teew tamuy yàqu kan nga xam ne moom dafa toxal jëmmam jóge jële ko gaawan ba fii te xam naa avant bis bi xam naa coono yi mu daj yëpp bëkk démb laa mu nekk ndakaaru dafa naay sax da yebal délégation waaye fexe na ba góor góoru ba ñëw di gërëm maire Khalil Fall yebal góoru Diop mii nga xam nii moom tam wax dëgg yàlla wax na fi wax ju rafet wax joo xam ne nii kenn mënuñu cee teg dara waxi dëgg wax yéene di gërëm délégation Jib Thiaw di gërëm délégation Babacar Ndiaye di gërëm délégation sama grand frère Pape Diouf yebal na fi délégation te wér ba yaan jiite ko di gërëm délégation Mathioro maire yi fi envoyé yëpp ay délégation maa ngi di gërëm di leen sant mel nañ teew nañ fi ndax bëgg nañu ñëw te mën ñoo ñëw di gërëm aussi chef de village yi nga xam ne nii yàlla nu boole liggéey bi te njiy kilifa te toxal seen jëmm ñoom itam ñëw fii fekke bis bi wax fi wax ju rafet ci kàddoog Baye Ndonga Fall jaarale ko ci Ousseynou Fall doomam wàcce ko ci Ibrahima Sarr mu wax fi wax waxi wax ju rafet di gërëm ñi fi teew ñëpp enseignants yeeg jeunes yeeg jigéen ñeeg ñëpp dama bëgg jëkk rek ci parrain yi parrain yi dama bëgg taxaw ci pareetu li ma def nii day ba ma koy def dama seet lu war rekk ma def ko ndax at lu war a fi am ak lu war a di maa ngi sant yàlla ne bi ma yàlla xamalee lu war ne place bii day ba addinay tukki ka koy jëkk defar foofu kan la waaye kum kam mën di tuddee su moyee Aliou Fall ak Tanor xamut la muy def loolu ma sa nekk sama xel bi may di dox di dox di dox ba yàlla mii suttal daal di koy sutal sama yéene ji ci Aliou Fall Tanor yàlla suttal xaw ma ne wax dëgg yàlla dina deme nii de xadi maa ngi lay gërëm Fall di gërëm képp ku sa mbokk moo àndal ñëw fii moo xam dafa càllaloo ci Tanor moo xam dafa càllaloo ci Alioune Meissa Fall yaa ngi wax ne de mënuma la gërëm waaye may mënuma leen a gërëm ndax seeni kilifa def nañ fi loo xam ne nii nun on est obligé tudde leen barab bii buñ ko defan itam te ñëwu leen itam faw nu tudde leen barab bii parce que ñoo ko fa xas def te lu mbaax kenn mënu koo fay ci àddina ndokk yàlla nag biñ ko defee ba pare yéen itam ngeen delloonu teraanga ji da ngeen di ko delloo ba mu mat sëkk na ngeen xam loolu te maa ngi leen di gërëm bu baax ci loolu bu baax a baax a baax bala ma koo fàtte waa kër Aliou Fall ak Tanor ñëw nañu fi def nañ fay ay teranga ci biir teranga yi nag am na boo xamee lambay gépp a ko bokk te dama bëgg mu leer ci géew bi xalifa taal ak i ak i frère am ak i sœur am yëkkati nañu ñeent fukki junni jox ko centre de santé lambay bii mi ngi ci sama poche suñu génnee daa ko jox du ngeen tàcc loolu waaye loolu suñu jógee incha allah dinaa ko teg seen loxo ngeen dugal ko ci poste de santé Xadi Fall maa ngi lay xamal ne la seen waajur yi Aliou Meissa Fall ak Tanor Mamar Fall làmbaay mënu leen a fay ba àddinay tukki man ñoo ma yar jàppee ma leen ay chef de canton ndax ba may juddu chef de canton xew lépp waaw bis bi tey doon bis bu bu am solo ci ci nun ñu ñëwoon tey làmbaay doon inauguré magasin Pafa bi euh, ak marché Mekhe bi nga xam ne noo ko réaliser ak place publique bi nga xam ne dañ koo dippee ñaari chef de canton yi mujj ci Lambaye te muy Alioune Meissa Tanor Alioune Meissa ak Tanor Fall donc place bi mi ngi tudd place de l'indépendance Alioune Meissa Tanor Fall ñooñu nag doon ñu fi nekkan ñu baax a baax a baax a baax man personnellement ci seen loxo laa juddu euh, ni ñuy yare seen doom yi lañ ma yare euh, seen doom yi aussi sentiment bi ñu am ci ñoom man moom laa am ci ñoom euh, bi ma nekkee maire sama xel jàppan ne place bi daal war nañ ko defar tudda leen ko ndax xale yi nga xam ne ni euh, bëkk démb rek ay tuut tànk lañu war nañoo xam ne am na ñu fi jaaran tudd Alioune Meyssa Fall ak Tanor Fall def nañu rafet ci làmbaay ba war nañoo mérité place bi ñu sant yàlla nag bi ñu yàlla dimbalee bi nga xam ne ni def nañ ko ba ñëpp mën ci teg seen bët tey ku fa dem tey di nga xam ne fierté làmbaay la loolu nag maire yi dañ ko war a def seen bopp aussi parce que développement baax na infrastructure baax na waaye itam dekkal cosaan ba ndaw yi xam luy cosaan fu ñu jógee ak ñi fi nekkan lu am solo la stèle bi ñu def nii def ci teeñi làmbaay yëpp nga xam ne war naa mat quarante teeñ presque def ci chef de canton yi euh, nga xam ne xale yi dañ ko daal dégg nii rek mais xamuñu sax niñ teglantoo nun nu teglante ko ci année yi époque yi euh, chef d'arrondissement yi fi jaar yëpp ak sous préfet yi fi jaar yëpp ñu ci stèle bi loolu je ah, defe naa lu am solo la président yi fi jaar fépp tam ñu def leen fa dafa kaddu polukaay dafa sumpas ngañ dafa weeru gën dafa guy ndënge yooyu ay garab la yoo xam ne man xam naa ci am yoo juddu naa fekk leen fii waaw defe naa sumpas ngañ ak ak kaddu polukaay daal la fekkul fekk naa ñu daan mais guy ndënge xam naa ko bu baax a baax a baax te loolu yëpp c'était ay site la yoo xam ne c'est chargé d'histoire donc mu doon bis bu am solo ci nun tey jii euh, Lambaye doon bis bu euh, dëkk bu am euh, potentiel touristique ak culturel te loolu maa ngi interpellé état bi ñu ñëw Lambaye gis lifi yàlla def ci ci affaire culture ak affaire histoire. waaw réalisation aussi wax naa ci ginnaaw bi ma waxee sama réalisation yi ma fi def te Lambaye te mu leer Lambaye gépp ci mbiram courant dëkk yu ma électrifié mbiram ndox forage Mbirne Diop bi nga xam ne PUDC ko def ak yeneen yeneen fi ma gën a appesantiru te gën a bëgg làmbaay xam ko ndax dëkk boo defal courant dëkk ba rek koy xam yeneen dëkk yi mën nañ ko bañ a xam dëkk boo defal ndox yeneen dëkk yi mën nañ ko bañ a xam ma profité tey nag si daje bi tey nga xam ne làmbaay gépp a ngi fi ma wax leen li président Macky salli def li fi président Macky Sall def ma jël exemple courant rek ma ne depuis Senghor ba ci Ablaye Wade ba ni Ablaye Wade jeexal nga xam ne mat na trent ans ñeenti dëkk dong lañ fi électrifié président Macky Sall ñëw jël Sénégal 2014 ma jël mairie Lambaye 2014 ba fi ñu toll nii président Macky Sall électrifié na lu mat ñee fanweeri dëkk ak ñeent lim naa ko seen kanam léegi ngeen dégg ko benn par benn kenn ñi moo ko weddi kenn mënu ko weddi ci ndaje mi kon loolu lu am la kon loolu na ko président Macky Sall xam ndax mën na ko def ba pare te du ko xam parce que moom ci boppam ñëwul fii def ko dafa santaane ñu def ko kon maa ngi koy xamal na ko président Macky Sall jërëjëf gàcc ngàllama Lambaye sa loxo ëgsi na fi lu mat fanweeri dëkk ak ngeent électrifié nañu leen ndox maa ngi baawaan forage Mbirnu Jóob bi réhabilité nga ko wax dëgg yàlla làmbaay li ñu am ci nguur ak Macky Sall mosu président Macky Sall mosuñu ko am ci gént nguur loolu kuy kuy ku yeewoo làmbaay ku nekk nung nga loolu xam nga ko te wax nga ko. lan nekk ci xolu waaw xam nga jafe-jafe nag moom euh, wax dëgg yàlla mook àddina ñoo taqaloo. waaw àddina mënut a dem te amul jafe-jafe waaw parce que du mat mukk ba ci àddina. waaw président Macky Sall li muy doon doon jàmbaar nga xam ne liggéey gi mu liggéey Sénégal euh, fii ci sax xam nañ ko teewut am na lu des man mii wax dëgg yàlla su ma tëddee tey dinaa nelaw ci liggéey bi ma yàlla teg ci lambay ndax xam góor laa ci te def naa ci sama sama kéem kattan waaye teewut am na lu des. li des nag ci gën a ñor lambay bokk na ci goudronné lambay ndangal ma ndax lambay dafa nekk ci xolu département de Bambey am intérêt économique. am intérêt social am intérêt culturel am intérêt euh, ci fànn yëpp daal. am na benn mine bu nekk fii ci ginnaaw te muy mine gàddu bisik loolu ñu ko defar tamit dina ko arrangé maanaam goudronné Lambaye ak Ndangalma depuis Senghor na nga koy ñaan te loolu bu amoon Lambaye day gën a am ouverture sur euh, le reste du Sénégal. noon koy sant nag parce que tam nit du ñaan rek autoroute à péage bi nga xam ne nii mi ngi soree Lambaye un kilomètre cinq cent te am pont boo xam ne nii suñ fa defan wàccuwaay mu dugg Lambaye kon dina contribuer bu baax a baax a baax ci désengorgement Dakar ndax kenn umpalewut ne 67 pour cent des activités de Dakar c'est des c'est des activités informelles te informel boobu li ci pàkk yi occupé kenn xamut nu mu toll te pàkk yooyu 90 pour cent yëpp Lambaye gi lañ dëkk kon nag ku ubbi woon ku fii ci pont bi nga ubbi fii bretelle boo xam ne day wàcc ñëw Lambaye wàcc jógu dem dem Touba di nga di nga may possibilité ñi dëkk ci pack yi ñu ñibbisiwaat làmbaay gi dëkk làmbaay gi di liggéey làmbaay gi man mii ni su boobaa may jëkk ñibbisi làmbaay gi di xëy fii di liggéey Ndakaaru ndax su boobaa kon làmbaay ak Ndakaaru quarante minutes lay doon kon loolu dafa am enjeu euh, d'aménagement du territoire am enjeu environnement parce que ça va décongestionner Dakar aussi loolu lu am importance la te loolu maa ngi ci interpellé son excellence Macky Sall fépp fu pont am ci bi nañ fa def ay échanger nañ fa def ay ay ay ay ay ay bretelles de sortie et de monte loolu day tax nit ñi mën a am possibilité ñu boot seen dëkk te lambay gi moom fenn gënu ko cee placé ndax lambay dafa nekk ci xolop Sénégal daanaka ay ay dëkk mën nañ fa soo ko goudronné mën naa jaar ndàngaam mën doon dal Mbour mën naa jóge fii dem Bambey Ñaaxar wuti Fatick mën naa jóge nii dem euh, Kër Sambakan Baba Garage euh, Nganda daal di wuti kaw mën naa dem jóge fi jaar Pekes dem ci kaw kon lambay vraiment dafa nekk euh, loo xam ne ni ku ko jàppale rek sur le plan économique mën na avancer te man na xëcc Sénégal gépp mu avancer aussi sur le plan économique waaw waaw. Voilà, euh, nous interpellons le président de la République. Euh, c'est une doléance, évidemment. Euh, nous sollicitons au niveau de sa, de, son, de sa haute et bienveillance de nous faire... Euh, une bretelle de sortie et de montée au niveau du pont de, de Gol, euh, ce qui va permettre au lambay lambay de monter sur le droit à péage, d'avoir la possibilité de monter et de descendre au niveau de Gol. Euh, ça favoriserait euh, le désengorgement de Dakar parce que nul ne doute, ne, nul ne doute que euh, l'activité informelle de Dakar euh, constitue plus de 60%. Et dans ces 60%, les packs, les 12 packs de Dakar, euh, en constituent une bonne partie. Et l'essentiel des packs-là sont de Lambaye. Tous. Tous. presque sont de Lambaye. Donc euh, une bretelle euh, de montée et de descente au niveau de Gol, sur le pont, sur l'autre appayage, favoriserait le retour de tous les gens qui sont dans les packs et qui ne font rien presque là-bas, à revenir ici, euh, travailler à Lambaye, habiter à Lambaye, parce que Euh, la distance Lambaye-Dakar serait au point, de vue temps que de, que de 40 minutes. 40 minutes, c'est quelqu'un peut quitter Agueyewaï pour aller à Dakar Centre, tu quittes Lambaye, tu, tu, arrives en premier. Donc ça c'est important, ça a un, ça a un enjeu d'aménagement du territoire, un enjeu aussi euh, d'essor de, de, économique et un enjeu aussi social, parce que ça va permettre à Dakar de souffler aussi. Et donc euh, l'infrastructure routière Euh, en l'aménageant très bien, de façon intelligente, on peut contribuer à désengorger Dakar, on peut contribuer à assainir l'environnement de Dakar. Et donc c'est essentiel et nous évitons le président de la République à, à bitumer euh, l'ambaye et euh, aussi à faire des, des, des sorties, des points d'entrée et de sortie au niveau de, du pont de Gaulle. Merci. Merci. Merci. Je remercie. ce matin, on est ensemble. Euh, à ma très grande satisfaction, encore remercier de façon, euh, de façon très, très, très appuyée euh, le ministre Morgom qui n'a ménagé aucun effort à m'accompagner dans cette journée-là. Euh, N'eût été son déplacement à Matam, il serait là avec moi depuis ce matin jusqu'à ce soir. Et moi aussi, pour, le, pour, le, pour, pour lui rendre ça, qu'il soit, qu'il soit, soit clair à son niveau que euh, il, a, il peut compter sur moi. Il a un ami, il a un frère qui s'appelle Cheikh Ndiaye, qui est prêt à être à ses côtés tout le temps et d'œuvrer pour le, pour le renforcement du parti, pour la massification du parti, pour que le président Macky Sall sorte vainqueur dans, de tout, dans toutes les élections et échéances à venir.